téléspectateurs yi KN TV mbokki internet yi gis ngeen ñu tey ñu ngi fii ci biir central bu Tëngéej comme niñ ko doon defee waaye tey nag daa wuute ndax xam nañ ni Sénégal gi yëpp ñu ngi si safar di waajal li nga xamante ni moo di màggalu Touba gi tey nag ñu ñëwal leen si cant gi nga xamante ni moom la euh, commerçant bu marché Tëngéej di daal amal gis ngeen bâche bi nii suñu ginnaaw waaye terewul rek dañuy dugg rek ci ñi nga xamante ni ñoo yor wàllu waañ bi ñu xool rek safar gi ni muy doomu maam jaara bu sa ji macha allah ñu dugg ci biir xool jigéen ñi lan la ñuy liggéey ci waañ bi. ayca soxna si ñëw nañ fekk la ci waañ bi nga xamante ni moo di waañu Cheikhul Khadim laa ko mën a tuddee ndax yéen a ngi safar fas yéene eh, waajal màggal gi noo leen di dundee seen safar gi tey gi. xanaa di sant sëñ Bamba rek di ko sant bu wér. xam ne yoonu Serigne Touba wi amul tànk ginnaaw tànk kanam rek di sant Abdou Diop ñun waa fëgg jaay yi dañoo nekk ci marché bi di daan suñu doole suñu safar gii ci keek lañ ko commencé li may wax rek jënd suñuy mat leen segg suñu kafe li lay waral ne Sëriñ Bamba yoonam wii ku ci def ren ñaar dërëm bu euh, da déwénee junni nga ciy def barke Sëriñ Bamba ca kaw ca kanam bu ba déwén dañoo bëgg a tànt nag ba géej waral ñëpp la demal amul murit bi amul xaadir bi amul laayeen bi te safaruk Abdou Diop gii moo waral lii yëpp am tey Abdou Diop mooy seen jëwriñ Abdou Diop mooy suñu jëwriñ keroog ba mu koy door ma ngi ko dooree ci baraada ak kafe ak beñe mu ne jàpp leen ma ci safaruk sëñ Bamba gi am na ñu ko doon reetaan nag am na ñu ko doon reetaan mais tey see dem nañ ba tey xeeb nañu benn na xeeb nañu ñaar xeeb nañu ñett macha allah Abdou dañ koy ñaanal rek ndax nag olof Ndiaye nee na benn lam kese mënut a yëngatu ñi mi àndalit macha allah ndax ànd nañoo moom jàppale ko nangul ko torop ñun ñi jigéen tam aussi noonu ndax Abdou soo gisee ñu sawar ci yëfam dafa boole lépp mu nekk benn bëggul kenn ku mer Abdou loo ko wax day ree rek dem ndax safurug sëñ Bamba gii ak leneen ak leneen Abdou xol bi rafet na te safar gi li ma ci gën a ñor rek li ma ci gën a neexati mooy bu koy def day jël murit xaadir laayeen bu ci kanamee boo ñëwee ci tante bee nga xam ne Abdou mi lu dëggu la ci moom te lu dëggu la ndax ñun ñëpp jigéen ñi xam nga boo ñu fekk ñëpp ñu toog nga xam ne kii am na fu mu sori ci ñoom ñu koy ñaanal nag saa su nekk yal na yàlla yokk xéewalam yal na yante bi jàppale ko ci darajay Seydina Mohamed si barkeb señ Babacar Si Maalik barkeb sëñ Bamba yéen tam ñu ngi leen di ñaanal ndax xeebu leen ñu su ngeen ñu xeeboon du ngeen fi ñëw yal na yàlla yante bi yokk télé bi mu sekki benn dugg suuna ci darajay Seydina Mohamed si barkeb sëñ Babacar Si Maalik Abdou daal kontaan nañu ca kaw ca kanam yokku ba yokk ko. wax na si looy sànni ci li nga xamante moo di cant gi ngeen di def fii mu di safar gi. tubaar fakkaal la sama xarit nu sante yàlla julli ci Seydina Mohamed sant sunuy ñaari waajur ñi ngi sant Abdou Diop mi nga xam ne tubaar fakkaal mooy sunu jëwrin ñun ñëpp nag macha allah ñun ñi toog fii ñëpp nekk ci safar gi murit yaa ngi fi xaadir yaa ngi fi laayeen yaa ngi fi waaye tubaar fakkaal macha allah Abdou Diop dafa boole mbul ak làmbaay te kenn merul tubaar fakal la nekk suñu jëwrin nag te dawut ci sëriñ tubaa dara dawut ci waa sëriñ tubaa dara ñu koy ñaanal jóob moo xam lu nekk ci dënnam yàlla na ko suñu borom defal suñu safar gii yàlla na du fekk ñu fekkewaat suñuy safar yu baree baree bari te buñ ko fekkee ñun ñëpp yàlla nañ ko tal kenn ku ci nekk coono boobu sonn rek yàlla na ko sëriñ tubaa sotti ay xéewal ci barkeb seexul xaddim kontaan nañ télé bi tam yàlla na ko suñu borom dégg fu sori ci barkeb seydina Muhammad sëñ bi nuyu naa la ñoo gi lay sant gis nañ ni ngi dajaloo fii di def safar gi yéen waa marché bi Euh, yéen seen mbooloo mi moom mu ngeen ko fexe ab daayira wala ku ñëw bokk si la rek. waaw ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di nuyu ñëpp waa marché bi ki teew ak ki di sant ñëpp di gërëm ñëpp boole ci nag di woolu yàlla di yaakaar yàlla ci suñ programme yëpp ndax suñ borom mooy li jëkk mooy li mujj ndax bis yàlla yàllaa ko moom te suñ borom lañ ciy sant amul kenn koo Euh, moom lañ ci dugal aw turam ku ki nga xamante ni moo ñu jàngal yàlla muy Serigne Touba mais bis bi sun borom a tax mu taxaw te lépp luñ ciy def wala ñuy def wala ñu di ci wax yàlla lañ ci yëg mais amut jëm nii wala Serigne amu ci yàlla rek lañ ciy yëg moo tax li taxaw lépp rek kon ñoo ngi koy sant sunu borom ndax mooy lépp man nañoo jaaree nag sant gi nag ci Serigne Touba mi nga xamante ne moo ñu wane ñun ni ñuy sant Serigne sunu borom waaw Serigne Touba dañoo wan ni ñuy sant sunu borom moo tax cant gi aw làmmiñam da ciy dugg ci biir ay waxam day dugg ci biir ay jëfam day dugg ci biir yooyu yëpp day dugg ci biir waaye daal liñ la mën a wax man laa wax mooy mbooloo mi tëjuñu ko ah, dañ koo def comme liggéeyub jumaay rek ki commencé ak ki raax ak ki ki àggale ñoom ñëpp ñoo yem même majorité ci mbooloo mi mbooloo mi amul kii fi jiitu amul kii am ak ki ñun ñëpp dañoo ànd bokk nday ak baay ngir liggéeyal Serigne Touba te yàlla tax ngir liggéeyal Serigne Touba te yàlla tax. ngir liggéeyal te yàlla tax kon ku ñëw rek ci nga bokk maanaam ci gàttal. ndax yéen li ngeen di toggee yéen a ko joxe seen bopp wala comme gi ngeen am ba ba teg mbana yi wala rey ay gàtt nu ngeen def ba dajale. waaw rey nañ lu man ñetti nag waaye yàlla def na ni tuddewun ministre tuddewun chef de quartier tuddewun ko kenn dañoo def suñ propre moyen ko am juróom nga andi ko am ñaar dërëm nga andi ko am fukki dërëm nga andi ñu dénk ko koo xamante ni seen loxoom set na mën naa ànd ak ñun. ñu dox ci loolu ba tey jii moo waral jëmmi bis bi am li am lépp looloo ko waral fukki nit ñi ak juróomi ni kiñ ci laaj ki gën a seerluñ ko laaj 500 francs la ki ci gën a néew juróomi dërëm la waaye ci lan taxawal lii lépp rek waaye nag lépp en tout cas ñu delloo ko ci sun borom mi nga am mooy Malikal Mulki. macha allah jërëjëf yéen lii ñaata at ngeen kat dalee def. Uh, cant ak yi yàgg nañ koo def léegi ñu dem ci sunu 10 ans. biñ koy commencé ñoo ngi doon jënd. dañuy bàyyi ba borom café yi ñëw ñu jënd cafteeru café bu 2000 wala bu 3000 servir ko jëkk yàgg ñu wut beñe servir jëkk yàgg ñu xool ni xaaj bi war nañ cee mën a am ginaar ma ni leen bu ñu jëndati ginaar nañ leen xool ñu jënd nag wala dara mais ñu jënd nag suñu boroom nag daal di jaare ubbi mbir mi foofu daal wax dëgg yàlla jaare ca nag du ne nag rek nag daal ñu yomb lool nag. waaye nag lii la ñuy wax ci màggalu sëñ Touba borom moo ko téel boppam ndax nee na ci ay café lañ doore woon tey jii ñu ngi rendi ay nag di teg ay mbana ci ay kafe rek lañ doon dajale ak ay ginaar ba léegi ñu ngi ci nag donc sëñ Touba moo téel boppam màggal gi looy ñaax sa mbokku murit yi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi fas yéene wutali Touba ci tali bi waa ñu gën a góor góor la vigilant ndax Serigne Touba jàngale wut boppam Serigne Touba wane wut boppam Serigne bu Touba tiitar wut ci boppam Serigne Touba li mu te bëgg murit yëpp nekk ci mooy xam yàlla ginnaaw bu nu xamee yàlla ñu xam kan mooy rasulillahi waa lii moo ñoroon seriñ Touba li fi des lépp ak noo ko déggee ak nu ko nit mën a waxee luñ fi teg la rek waaye seriñ Touba bëgg baggam yàlla la. ba mu amee yàlla rasulillahi rek la ca mën a teg xoolaatul leneen ndax nee na damaa dem ca la ilaha illallah laa ilaha illallah joxeñ ma Muhammad rasulullah ma bàyyi fa laa ilaha illallah dem ci Muhammad rasulullah Muhammad rasulullah jëlee ma ci laa ilaha illallah. andi ma ci laa ilaha illallah ma boole leen muy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo tax kon lépp dañ koy delluwaat ci ahmadu rek lépp daal di jeex koy ahmadu bamba waaye tey looy wax suñu télé bi nga xamante ni génn na nag tey ñëw wuy si leen fii si ngeen xam ne seen cant waa ñu di ko ñaanal yokkute ndax euh, loo gis ci àddina benn tànk di doxee ba am ñaar ba am ñett ba ñeent ndax euh, nit du xëy yéeg ci kaw ni da ngay jël étage par étage par étage ba kere nga yàgg ci kaw ñoo ngi leen di ñaanal ngeen kawe ah, lu leen man ren ngeen man déwén lu ko ëpp bayre boo xamante ne nit da leen ci seetaane yàlla na leen ko sun borom yombalal ah, nit ci yi nii ne yàlla na leen seen télé bi nii ne rek fu waay jógee rek xam ni Ah, bala nga xëy di nga lekk lu niin ba nga bëccëgoo lekk wala nga gudd yàlla na ni télé bi mer rek saf sap saf sap saf sap ci barke Ahmadou barke Sëñ Fall macha allah waa KN TV dégg ngeen ñaan gi nee amin papa Doudou dégg ngeen Aminatu yow mi ma jàkkaarloo dégg ngeen yaa gis naa la yaa ngi taxaw si ginnaaw sànq ba léegi gis nañu yéen a ci biir marché bi waaye terewul ñi am taabal lalli nañ ñi ami cantine tëj nañ fas yéene bokku cant gi ak cheikhul xadim yaa booy looy wax tey xanaa di sant ci yonent bi di sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal mboolem ku bokk ci safar gi ah, ndax nag ba ñuy café li Abdou Diop wax rek waaye moom mii ñëpp moom la ñun lu ñu mën rek Abdou Diop a tax ndax beñe lañ daan def ak café mujj ñuy def mat leen ak café mujj ñuy def benn nag ak togg ñu fukki cin léegi ñuy dem ñaari nag ak fukki cin ak juróom ba tey ñu ngi ci ñetti nag ak fukki cin ak juróom macha allah ñu ñaanal nag Abdou Diop ñu koy ñaanal ak mboolem ñu ñu bokkal ak Lat Sarr Serigne Fall Fallou Cheikh Diop ñoo ñoo sos yëf yi ak Ajaara saar ak mbokk yi ñuy waa marché bii dañ ne woon ñu dañ mbedd yëpp ay safar te ñun duñu safar kon nag nii suñu maram yi def ñun mën nan ka danoo bëgg ñu def ci ñoom Abdou Takku rek maa ngi moom may laaj àllarba muy laaj jigéen ñi dem nañ ba léegi dañ ciy jënd ay mbubb di ci nuroolaale di togg ñaan fukki ci nag juróom waaye Abdou Diop ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla li sëñ Bamba yi séddale yàlla buñ ko ci ëppale milliards yi sëñ Bamba yi yàlla bu ci kenn ëppale xale yi bokk ci kii bi ñi ku sopp sëñ Fallu loxo ku Mustafa Tëngéej xamante ni moo di safar gi ñu ñëw tey ki ko jiite nag mu di sëñ du Diop moo di jëwriñ gi dégg ngeen kàddu yi mu wax waaye dégg ngeen ba tey ay jigéenam ñu si teg ñaanal ko yàlla bu baax a baax ba lu mu man ren yàlla man loo ko déwén lépp luñ ci sonnee rek yàlla na leen ko borom bi bés bi fay muy sëy Xadim ñuy ñaan yàlla rek ñi nga xamante ni encore une fois ci tali bi lañ fas yéene daw muy suñu mbokk chauffeur yi nañu daw ndànk dal ndànk naka sëñ Fallou Mbacke waxoon te lépp lu ñuy defi Touba rek nay jàmm ak borom bés bi nag moo teel boppam bés bi lu si waaye def lu dul noonu rek dina dal sa kaw ñu leen di jox dig daje si beneen numéro Peace and Love màggalu jàmm ak salaam